bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalaamu ala rasulillah mawlana muhammadin wa ala alihi wa man wala jamaatul islah bayna nas assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu dikk ak yéen ci xew-xew yi nga xam ne moo tukkee ci jihaad bi dox ci diggante jullit ñi ak yahud ñi foofu ci ardu Palestine mu mel ne démb àgg nañ ci ñaar téeméeri fan ak fanweer ak ñett yëf yi ñu tàmbali woon depuis le 7 octobre jullit ñi di ko dippee tuufaanul aqsa te mooy waameem aqsa te mooy les délices dal aqsa ba ba léegi nag yëf yaa ngay gën a metti d'accord ci ñaari wàll yëpp muy ci jullit ñi ak ci yahut waaye démb nag jullit ñi fësal nañu ndam loo xam ne loolu mësul am sax ci xeexu Palestine adduna bi yëpp daal di leen di joobe kañ leen xam ne ñi ay jàmbaaru fakk tëdd lañ ginnaaw ba ñu xamee ne ñoom kat seen soldaar yi bu ñu doon téeméer quatre-vingt pour cent yi ñu ngi taxaw ginnaaw ba ñu xamee na seen kàmb yooyu ñuy naxee doomu israéliens yi dañ ci dugal leen di faat bu doon téeméer juróom-benn fukk yu topp ñu ngi taxaw ginnaaw ba ñu xamee ne seen i ngànnaay bu doon téeméer juróom téeméer bu doon téeméer la juróom-ñetti fukk yëpp a fi tey ñu ak njàmbaar ngeen seetlu ca kaw la njëkk a xew loolu moom mbaaxu yàlla la benn biis bu fees del ak ay yahud daal ne explosé foofu ci Tel Aviv ci capital ba waaye yemul foofu sax gis nañu c'est la première fois c'est la tiir ay missile mu dugg biir Tel Aviv ba nit ñi di daw c'est la première fois loolu mu ngi doon di am barki démb ñu tiire ay missile mu dugg bi Tel Aviv kon léegi Tel Aviv muy capitale yahuut yi nekkatul en sécurité kon képp ku fa nekk yaa ngi ci danger parce que léegi ñam nañ ko neex na te dañuy delluwaat mooy ñu ngi commencé tiire ay missile muy dugg foofu nga xam ne mooy biir Tel Aviv allahu akbar loolu mooy mébét bi gënoon rëy ci jullit ñi bu yàggee léegi léegi nag loxo nag ci capitale bi ñu xam ne mbir mi nag nekkatul ay caaxaan ma ne mbokk yi koo xam ne bu jógee day dellu ci ab taabulam di naani sàngara di njaaloo du bokk guddi gi day fanaane sujjóot xëy jàmmarloog ñi nga xam ne mooy noonu yàlla yi te liñ gis nag alhamdulilahi rabbil alamin waaye yemuñu sax foofa nag ñu xew-xew boo xam ne am na nit ki démb neex lool xew-xew boo xam ne neex na lool ci xolub jullit waaye neex na si xolu nit kuy yëg kii ay soldaari soldaari soldaari yahud adduna bi yëpp wane nañ ko ñu jël leen nax leen ba ñu dugg ci ab kàmb ndax ñoom amuñu xel dañ leen nax ba ñu ne sarax ci kàmb ñu rey ñeen jàpp ci lim bu loolu moom démb sax ba ñuy def suñuy lañ nañu am ngeen benn cadeau ci jazira directement ci la xew bi amee te waa jazira ne loolu lañ leen may ñu wane ko kon li ci des moom bari na kon ci jamono bi may waxee nag nag nañu gën a yokkaat ñaan yi gën a yokkaat kañ beeg bàkk bi te xam ne jullit ñi macha allah yàlla jox na leen kaddu jox na leen sañ-sañ tey ci kaw yi moo tax waa Kataayibul Qassam ñoom nee na ñun ñun ñoo songu Tal Abib dóor fa misil allahu akbar dóor fa misil bu mag a mag a mag loolu nag lañ ko def ngir fayu seen ñaaw teef yi nga xam ne dëkk nañ di ko def ci ñi nga xam ne xeexuñu ci suñuy doom ak suñuy jigéen ma ne xoolal vidéo ba na muy demee di yéeg ci asamaanu fi nga xam ne mooy Tel Aviv loolu mu ngi am moo tax benn waaye boo xam ne boroom xam-xam la ci wàllu xeex nekk benn colonel boo xam ne ab irakien la ci lu jiitu ñu koy xaatim salaax yi nee na liggéey bi nga xam ne mu ngi am foofu ci mu xayam ya te Abu Ubayda fësal na fa ne ñoom àgg nañu ci àgg nañ ci wàllu natt ak stratégie ak ci wàllu plan ci wàllu terrain boobu loo xam ne amul benn benn arme bu leen mën a dëkku ci kaw àdduna bi waxatuma arme bi nga xam ne mooy arme israël ak ñi mu àndal te danañ ko tabbal danañu tabbal arme israël ci diggante rey ak jàpp ci lu amul benn wàll kon loolu mooy tekki ne xeexkat yi ci Hamas ak ña ànd ak ñoom bis mi tey tey lañ gën a dëgër tey lañ gën a taxaw tey gën a wane ak njàmbaar tey lañ gën a wane ak fit tey lañ gën a wane ak

maanaam jëliwaat seen doom yi nga xamante ni jullit ñi jàpp moo tax fi tamit gàllankoor boobu la am amul lu muy laay li nga xam mooy askalam ndax wéer na ko ne ñee delluwaat nañ jàppaat lim bu takkoo takku ni ki démb te lii ba fa muy jëm ñëpp xam nañu ko ba fa muy mujj ñëpp xam nañ ko mooy inhiyaaru dawlatu sahyuniya almasuniya allati aqamaha jamii al quwa al aalam maanaam mboolem force yi nga xam dañu nekk ci àdduna bi di jaay doole seen état boobu ñuy tuddee état juif sioniste mu nekk symbole mu nekk ramzu nekk symbole de tyrannie nekk mandarga ci mbewte bis ni ki tey dina daanu dina xaweeku ak képp ku ànd ak ñoom ci amaama junudillahi al muqatilin al ahrar ay alshabab wal hamas wa kulli jamil mihwarul muqawama te loolu mooy lii am insha allah ala inna nasran qarib ala inna nasran qarib ala inna nasran qarib bal ata nasrullah waasraya quds waxaat nañu ne xuus nañu démb ci jàmmaarloo bu tar ak suñuy ngànnaay ak suñuy misil ak li ñu yàlla jox la waaja waxoon lan mooy maa hiya aslihatukum loolu la ñu waxoon Mouhamadul Fatih ndeysaan ca ba nga xamee ne njëkk nañu bëgg a nangu fi nga xam ne mooy turc mooy Istanbul Istanbul ci turc Istanbul mooy ardul islam Istanbul boobu amoon na ay temps noonu yàlla yi teg fa seen loxo ne duñ fa Mouhamadul Fatih di ndaw loolu nga xam ne mooy ndaw jooju nga xam ne ñëpp a ko ràññee ndax ñaari Mouhamadul Fatih la am na boo xam ne moo tijji ji fële ca côté Inde muy Sindh boobu ci jamono yoxu jaaj dafa yàggul Mouhamadul Fatih mi kuñ doon wax Samsudin mooy sëriñam Samsudin la ak moom keroog bi nga xam ne Mouhamadul Fatih yaramam tàng na jër mu fekk ko ci xayma bi fekk gi daal di sujjoot góor gi daal di sujjoot daal di mu daal di jékki-jékki wax góor gi ne góor gi ne góor gi ne góor góor gi ne ko demal gañe nga xare boobu Mouhamadul Fatih moomu jëf ju rafet jooju nga xam ne moom la jëfoon tey njàmbaar googu tey ci lañ commencé kañ suñu doom yi nga xam ñoom ñoo nekk biir Palestine waaye bu leen fàtte imam Ghazali keroog ba mu taxawee Palestine former ay ndaw bana sax du ma yem fa ci former ay ndaw yu libéré Palestine waaye yu libéré adduna bi yëpp ba commencé jokko Yusuf bun Tash mu tasef bu mag boobu nekkoon fii nga xam ne moom mooy fii ci Maroc waaye yàlla mujj dogal moom Yusuf Qadda moom moom Imam Ghazali ñamu jotoon a yar ñooñu ñoo yar salaaxu diinu Ayubi ba keroog ñu libéré Palestine googu nga xam ne mu ngi daan sukkandiku ci ay kilifa yuy dugg ci ay xalwa di yebal i diggante soldat si nga xamante ñoom ñooy ay yahudul quruut ak amaama ñi nga xam ne mooy al mujahidun al ahrar al mujahidun yi nga xamante ni ñoo war a taxaw pour libérer fi nga xam ne mooy adduna bi ñi nga xam ne ñoo war a bindaat safhatun jadida li taarixil insani taarixul insani boo xamante ni dafa fees dellak mbewteeg jaay doole impérialisme imposé ni ñi benn système maçonnique boo xam ne dañ ne ñëpp obligé def ko taarixul islam boo xamante ni dina fi jëlee li ñuy tuddee a alamul jadid moo tax benn ci kilifa yi yahut yi daa dinay gore daa dina ah ñun nag mbir mu ngi bëgg a xew ndax na dafa mel ne bayit naa raddan ala xassi tal abib dafa mel dañoo fanaanee di jéem a seet nag misil yi song na li ñuy fexe ba delloo ko ginnaaw kon nag jot na nag ñu xam na nag direction Israël bi na mu ngi commencé am ay jafe yu méttee métti moo tax nee na ginnaaw ba ñu dellu ñoom mu jaaxidoona yi ci xeex bi nga xam ne duñ jóg ci ci def fekkat nañu benn char de combat Merkava bu am boobu ci ñu daal di koy fexe ba daal di koy exploser wër jàkk ji ñu tudde masjidul ansar ci penku maaskaru jabaliya ca simalu qata'i gaza administrateur bi nekk ci xaraka Hamas muy Sami Abu Zahri dafa wax ni song bi ñu song Tel Aviv sànni fa li nga xam ne moom mooy missile loolu ab lettre la bu ñu jëmale ci ñi nga xam ne dañoo fëkk suñu réew muy yahut yi di leen xamal ni ñi nga xam ne mooy muqaawama bi mooy résistant yi mooy mujaahidoon yi dëgër lañu te jàppoo nañu te it wax dëgg yàlla loolu dafay firndeel que ni dafay firndeel que ni muy dóor bi ñu dóor Tel Aviv na loolu teg talla ci ne ñoom daal di ñoom ñoom yahut yi daal di nañu échec total ci seen i jubluwaay yi nga xam ne moom lañu amoon kon nag ñoom leen rek la ñu am taxaw ñoom amatuñu benn choix ci kanamu ñi nga xam ne mooy direction américain yi lu dul kon muy waa Amérique lu dul daal di jëf pression ci yahut ñu daal di deltu ginnaaw ndax ñun dóor bi ñu dóor foofu nga xam tal Aviv loolu dina nekk lettre bu leer la te des na ci kanam tuuti ngeen xool missile yi wàcc Tel Aviv di taw te bu leen fàtte nag ne Tel Aviv nag ci sécurité bu leen fàtte ne fii bi nga xamante ni doon nañ teeteelu sànni Iran te waa IRA defoon seen jëf ju jaloore jooju nga xam ne kañ la ak njàmbaar sànni ay mbir yoo xamante li taxoon ñu njëkk a sànni yooyu nga xam dafa mel kaw di ñu ngi di di di yi nga xamante ni waa IRA war nañ koo song waa IRA nax leen a sànni ay ay ay ay yoo xam dafa mel ni ay fowukaay la daal di koy sànni ay brasi bi mel ni ay fowukaay ba ñoom ñu jàpp ne yëf yi nag yem na ci lañ daal di yebal ci place ne fa la seen généraux yi nekk fa la seen léegi nag waa Palestine bi gis nañu yoon wi gis nañu yoon woowu nag fa ñu tëmbal démb benn misil mu daal di dem dem direct Tel Aviv te bientôt ci fan yi ngeen di ñëw Tel Aviv dinay taw comme ay misil ci kawam te loolu bu yàggee di ngeen gis ne yahut yëpp danañ daw génn bu yàggee ku muy mujj moom mooy ñu daal di teg loxo capital bi ndax lii ñoom ñoo nekk ci ay caaxaan jàpp ni ci ay jeu la ñu nekk jàpp ni ci dem doxantu lañu ñu nekk waaye xaqiqatan ni ñu ko seqal ci jihaad la ñu nekk te jihaad mbokk yi mooy li wér jihaad mooy ponk bi nga xam ne mooy libéré bépp bépp askan rawatina bépp askan boo xam ne askan jullit la ci jihaad bii mbokk yi moom mooy freiné le système maçonnique ordre mondial nouvel ordre mondial bi nga xam ne dañu ko imposé impérialiste imposé ñu ko ñu koy dund te loolu preuve bi dafa leer boo leen xoolee même suñu réew yi avec changement yi commencé am loolu mooy damm loolu mooy damm loolu mooy damm mbewte gi nga xam ne ci la yuhuut yi sukkandikoon ak mboolem ñu leen doon jàppale di notre réew yi te nag ñu xam ne nag exemple bi ci gën a rëy tey mooy mu jaaxi doon nekk biir ardu Palestine jàmmaloog cinquante trois pays cinquante trois puissance cinquante trois ay réew yoo xam ne ay puissance lañ cinquante trois di leen nërmeel guddi ak bëccëg avec tous ces matériels yi amoon loolu mooy tekki ne mbir mi mbirum yàlla la te yàlla ci jihaad la ànd kul allahu akbar kalimatullahi féete kaw ba fés te mooy waa ahlul xamaas ak képp ku leen di jàppale te sax am nañu ndam te sax am nañu victoire ndax deux cent trente trois jours nga jàkkaarloo ko puissance yu toll nii ci ay armement ci ay matériel ci ay moyens façon bu nekk ñu def ko ngeen jàpp na ne yàlla leen a seetaan tiim ay xale yu deful dara ay jigéen yu deful dara di rey guddi bëcc di mabbu ay kër ñu fekk ay nit ñu tëdd seen kër ngeen mabbu ko guddi fekk ay nit ñu toog di ndékk nga di fat ay nit da jàpp loolu ci amaama aalam ñëpp di ko gis mu mel lu dagan ñooñu nekk fi ci mbetu loolu ban addu la yàlla li seetaanee tooñ gu tol ni mu daal di am ahaa munul am bu jàpp ne yàlla fa seetaan yàlla seetaanul ne Ukraine bii ba ñu xaymaa lu tolloog téeméeri junni faatu nañ ko pourtant Palestine ñu ngi ci fanweeri junni ak juróom-benn te Ukraine boobu ña fay xeex ak ña ñuy xeexal yëpp kenn xew ci ngir yàlla jàpp leen li amoon Vietnam am ci fi nga xam ne mooy Nagasaki am ci Hiroshima jàpp leen ñan ñoo ko fi jëlee woon mooy étudiants yi ne ci université yi étudiants yi ba ñu yëngatu yëngatu fu nekk comme ni ñu yëngatoo ci la Amérique teg yoon loxoom yëngatu boobu tam moom moo dellu si bàyyi leen xel ne bi totaar yi ñëwee jóge fa la nga ñoom jëm ca ñoom ko jóge ci penku bi muy mongol yooyu dugg capital Baxdaad rey muxtasimu billahi jàpp leen ne deret ji da nga doon dox biir Baxdaad di taqaleeg moom ci suuf si ndax lañ fa rey ci nit xam nu mu toll waaye yàlla ba mu bëggee mu daj dafa daal di daj kon nag lépp am na njëg li kulli shay lahu saman njëgu Palestine mooy lii di faatu donte lu metti la waaye wallahi wa rabbul kaaba ba fu muy mujj ñoom danañu taxaw te sax laajatu ñu naan addu balaa ma dañuy wax dawlatul mustaqila di wax état Palestine indépendant pourquoi foofu Palestine rek moo fa am état dañuy wax ne dul xuruut nañu génn dem génn dem yoon dellu fa ñu leen jëlee woon mooy Europe de porte leen andi leen te xam ne suuf si suufu Palestine la te incha allah xam ne jàkka ji moom mooy masjidul aqsa te sa nu salli fii yawman min al ayaam mën mënta ñàkk ndax ñoom wàcc nañu ko na ngeen gëm ne bokk na ci cause yi tax tuufaanul aqsa bi am ndax léeg ma dégg ay intellectuel tubaab ñuy wax lu ñu xamul dara te maîtriser wuñ ko ñun jullit ji dañoo gëm ne tuufaanul aqsa bi am dafa jaadu bàyyi leen xel ne bu weesoo normalisation yi sur le plan politique bi nga xamante ni moom la yahuud yi doon jëflanteeg jullit ñi muy di jéem a jàmmoog ñoom pour mën a toroxal Hamas am na leen lu amoon bu leen fàtte guddi googu ñu defee tuufaanul Aqsa mooy guddi gi ñu prévaroon waajoon ko ci lañ waroon a mabbu li nga xam ne mooy masjidul Aqsa ci lañ ko waajoon na ci lañ koy mabbu loolu jullit ñu bëri xamuñu ko dañuy toog di toog naan sii sii di wax ñu xamul nekk ci plateau yi fekk jànguñu yeewuñu boobu lañ waroon a mabbu masjidul Aqsa masjidul Aqsa bu ñu ko mabbul amul benn julli ak lu mu rëy nga taxaw jàkkaarloo yàlla di xëy xaani loolu amul bàyyi leen xel Sénégal gi dañ ci am responsabilité nañ bàyyi xel ne mbir mi ba muy nekk lu xaw a woyof laa la wax ne ci la sëñ joxe woon téeméeri bi ne à époque cinq cent mille la dimbale woon doomu palestinien yi ki la Mawlana Cheikh Ibrahim doon wax di wax di wax di wax di wax di wax futti fu mu toll lépp lu mu mën ba ñoom ñu jàpp ne Mawlana Cheikh Ibrahima dafa gàddu ngàndaay boole ko ña nga xam ne mooy ñoom asu dini xasam ca jamono boobu waxuma nag jamono bii ñu yegg si nga xam ne nag tey demoon nañ ba am mébét pour màbbum li nga xam ne mooy masjidul aqsa jullit ñëpp toog di naan seen i kafiri sii sii fekk ay jàmbaar yàlla tàggat na leen li nga xam ne moom la Abdul Hamid kis ki waxoon maa ilaaji israil maa ilaaji ilaa annu rabbi shabab al mislah abu Ubaydah bun Jaraax misla Ali bin Abi Talib kon loolu rek moo nekkoon xale yooyu nañu màgg tey taxaw ngeen jàpp ne xare bi mooy alxaswatul xandaqu saani fi taarixil islam xaswatul xandaq nañ leen gawee woon gaw leen amuñu lu ñu lekk amuñu ñu naan daan bu ba lu bëri xew ca xaswa boobu moom moo dellu siwaat fii ci histoire muy guerre xandaq ak saani numéro deux te incha allahu asum danañ ko gañe loolu laa ma xaala laa ma xaala loolu kenn waxatu ko te xew-xew yi diggante barki démb ak tey kanam la jëm te wane na ko ku jàppee lii ay foo xam ne lii du ay foo lii du ay caaxaan xoolal étudiante bi war dem ba gàdd doctoram ak française daal di sol bi nga xam ne mooy drapeau palestinien te dañ ko waroon jox tey war ko jox doctoram devant tout le monde lii la xadis boo xoon yàlla dina dimbalee sax ci l'islam ñoo xam ne bokkuñ ci loolu dafa commencé am moo tax université yëpp ci àdduna bi université yi gën a ci àdduna bi tey yi lu mat ñetti junni étudiant tey ñu ngi ci kaso yi ngir àkko ci cause palestinienne bi waaye xool ci moment bi mu koo jox li nga xam ne mooy doctoraam ngeen xool dox doxalinam ak ñi mu defee nga xam ne lii lu yéemee yéeme yéeme la lii nga xam te ni yelloon na ci bépp jullit nga def ko yelloon na ci bépp jullit waaye ñoom dañu nekk ñoo xam ne amuñu complexe ci seenu ngëm-ngëm xool ko ñu ko war a joxe doctoraam ci la taxaw ci la daal di sol li nga xam ne mooy drapeau palestinien ngir soutenir lay xew Palestine lii nag ma ne ça annonce mal pour le juifs bu dee ci juifs yi moom ma la leer na li mooy wane na c'est fini c'est fini mooy wane ne parce que léegi adduna bi yëpp am nañ jëpp leen ñu nekk ci benn pokos boo xamante ni wér na ne mënatuñ cee génn ndax nag bu leen fàtte nag université yi ngeen gis ni muy muy jóg di asaaru di yug di tëb ñoom ñoo libéré lépp lu xew ci xew nee naa la guerre Vietnam bu doon université États-Unis bu génn foofu te loolu mooy lu wér ñu jàng histoire ñu ci groupe bi xam nañ li may wax Euh, xoolaatal match si biy dox ci diggante Grande-Bretagne ak Angleterre euh, Grande-Bretagne ak Pakistan muy match genre cricket yooyu muy match yooyu nga xam ne moom la ñu tuddee match rugby nga xool ci diggante boobu waa ji fa mu fële ak drapeau Palestine mu ji naan Palestine Palestine mbokk yi lii amul fenn foo koy gis ci àdduna lu ne sa annonce une bonne une bonne bonne kii euh, chose une bonne situation ci ci nga xam mooy doomi palestinien yi gis nga lii mooy duma yi gën a garaaw a yii xam ne mooy dóor yi gën a ngir sol dem ba adduna bi yëpp di yuuxoondoo Palestine kooku laa ma xaala yëxut amatu fa solo yëxut amut fa benn solo xamoon nañ ko xamoon nañ ne mbewte ku nekk si lay daanoo fitna bu nekk fii lay daanu ay te am na ci àdduna ay téeméeri téeméeri at am na ñaar téeméeri ñaar téeméeri at fan la mujj dafa daal di daanoo ci fii kon nag mbir mi nii rek la mënoon a demee gis ngeen tamit ci match bi li muy tar tar tar xool ngeen li xew xool ngeen li xew kon léegi foo dem ci adduna bi ci loo mën a dem ci foo mën a nekk ci bureau yeeg football ma stade yeeg li nga xam mooy cérémonie culturelle yi ëpp doole ci àdduna bi boo demee benn bis ngay benn leen ngay gis mooy lan yëkkati drapeau Palestine wax ni free Palestine mooy Palestine daal di am liberté lii ngay daal di gis ñoom ñëpp ñu koy doxandu waxandoo loolu nag su amee rek mooy tekki ne yëf yi jeex na mooy tekki ne yëf yi taxaw na mooy tekki ne la ñu am nañ ko te loolu nag dara may ko lu ay njàmbar ak fit ak fulla a fayda la waa ji waxoon Mouhamed Fatima yi aslihatukum mu ko aslihatukum naa yéen iman lan mooy taxawee nii nan la ko yàlla di seetaanee xoolal lii la ñuy tuddee magistance maanaam sekk aw ñooñ woo xam ne ñu ngi ci seenu béréb xeexuñu xeexaanu moo xam dañoo tëdd guddi moo xam dañoo tëdd bëccëg nga daal leen di bombardé ba yàqatali fii bu ñu leen ne ay dëkkuwaay la nit dëkkoon anam di ko def ci lu toll ci juróom-ñaari weer lii ana mooy ki ko mën a seetaan te nit nit koo xam nit ku nit la te mooy yi yooyu mooy yi gën a woyof si xam ne mënul ñàkk ndax ci ñaawteef yoo xamante ni daanaka di ko wane dafay daal di sax jéggi dayoo dëkk boo xam da ngay gis xale bu ñëw bu ci diw ne papa nga na xam ne ah, bindal ci sama yaram sama tur ndax bu ma deewee ñu mën maa xàmme dëkk boo xam da ngay gis aw askan ñu xañ leen naan ba peut ba dem nañ ba bu ñu làmbee seen loxo lu tooy rek ñu def ci seen gémmiñ jàpp ne ñu war a téye seen biir mbokk yi loolu ma leen ci kanamu ñaar fukki réew ak benn yoo xam ne ñu ngi seetaan lii loolu Iran ak Turc ak Iran ak ñoom boot ci moom muy Yaman ak Hizbullah ñooñu taxawuñu pour dimbaleen laaxar wa nag Iran nag bu leen neexee war nañ ko mën a def lii day cosaan seen libération ñu ngi dellu ci histoire jamonoy buxtu nazar yaakaar ñaar téeméeri at ba nga xamante rey nañu yaxyaa rey nañu zakariya te kenn def koon ku dul yahud yu bon loolu histoire moo ko sindeel def seeni ñaaw teef ña ñëwoon génnee leen ci dëkk ba troxal leen ñoom ñooy les mooy waa Buxtu Nasar kon kon nag bu ñu naan Iran Iran nañ xam ne lii cosaan la ci ñoom te bu leen fàtte waxu Saddam Hussein ma nga xamante ne waxam ju rëy ja Saddam Hussein ba nga xamante ne jàpp nañ ko ñeenti at yu mu toog di wéet di tuub di tuub di jaamu yàlla di njàng alxuraan wax ne amul benn bés bu mu ko dakkalee dem na ba kaamil ba dafa dem ba bënn na ay rongañ bàyyi leen xel bañ ko ne waxal sa kàddu gu mujj pour ñu bëgg laa rey la mu njëkk wax mooy kaamil bi jox leen ma ko diw waaye mu nekk ange Palestine ange Palestine ñu doog ko door yooyu yëpp nag dafa nekk ay taasiraat yu war ni àdduna bi ñu fi am xel yëpp am lecture bu baax nag am lecture parce que suñu intellectuels yi amuñu lecture ñoom xamuñu ñu xew suñu intellect ñi ngeen tuddee intellectuels yi xamuñu dara ndax xamuñu li xew parce que dafa am nit boo xamee dara da ngay xam histoire dafay bind ay safaxaat dafay bind ay page day bind ay xët actuellement histoire dafay bind safaxaata jadida day bind page nouvelle ci li nga xam ne mooy dund doomu aadama yi am na page am na ku xam lan mooy histoire di nga xam ne démb di nga xam ne barki démb ak am na yu fi nekkoon am na ay théorie boo xam ne def na fi lu jige téeméeri topp muy impérialisme bi nga xamante ni yahud ñoom ñoo ko imposé àddina jamono bii may wax ni boo amee la lecture bu baax laa la wax ni di nga xam ne histoire mu ngi tàmbalee bind ba ci suñu réew mi changement bii fi am ay xale yor ko yu gëm yàlla yu wóor yu dëgër dañoo bokk ci changement boobu histoire moo commencé bind safhata jadida loolu nag ñu am lecture bu baax nag ñoo ko mën a lii ñu am lecture waxuma nag ngay ngay nga xam ñoo xam ne seen bopp yi dafa buuse mënuñu am lecture bu baax wax loo xam ne dara xamuñu bi mun la ko sa wax def la naan problème isaalu arab proche-orient yu kenn xamul c'est que kooku il n'a rien compris ñi comprendre xam nañu ne adduna bi dafay dox ci ay xaat ak ay idéologie ak ay théorie idéologie théorie day dee di màggat di yàqu bi fi nekkoon nag muy nizaamu alaji muy nouvel ordre mondial bi nga xam ne impérialiste yi ñooñu ko imposé woon dafa nekk ci daal di jeex si fini beneen moo ñëwaat di bindu boobu di ñëwaat di bindu nag na nga jéem a nag nekk na ci kaw wagon bi balaa ngaa nekk en ndax boo nekkee dem bàyyi fi ndax yëfi loolu te ku am bon lecture ku am ni ngay liiree yow yaay xam nan ngay liiree histoire donc ñaawteef bii laa la wax nii ndax lii mën naa dëkk ndax lii mën na dëkk te nga ne te te te dara du xew lii xew na moom mooy li ngeen gis ci kanam tuuti ngeen gis dawla Israël daanu daanu impérialisme daanu ci àdduna bi sionisme maçonisme lépp danañ daanu ñu ubbiwaat beneen safa jadid li taarixil insaan yi ngay gis ba tey li nga xam ne mooy këru yéen a kaay yi nekk ci yahud ñoom ñuy wane ne am nañu ay loraange méttee métti yoo xam ne yu mën a natt la ci seen i jëmm ay loraange yu métti yu leen dal ci bâtiment boobu ñu làqatoon ci miir bi loot ci jalilul aala mooy Galilée ci kaw ginnaaw bi nga xamante ni sànni nañ leen ay misil te ñu leen ko sànni ñu nga jóge ba limaa muy waa xisbulaa taaliba asan nasra yi ñoo fa jaar fekk leen foofu daal di fay tëmbal ay misil yu am solo ci beneen wàll nga jël nga xam ne mooy pour yool mu ne lu ëpp lu ëpp xoolal ñaaw teefu lu ëpp fanweeri doomu aadama yoo xam ne ay daw làqu lañ ci rafa ñooñ ci boppam mujj nañ leen def mu musiba bu réeréy mu ne ñoo ñu bari bari bari ñoo xam ñu ngi foofu gis mu daanaka rey bi dafa yegg ci fanweeri nit ñoo xam ay daw làqu lañ foofu ci Rafah loolu di gën a nekk loo xamante ni mu ngi gën a wane ne li nga xam ne moom la ñu waxoon mooy nañu am muy moom moom la tribunal Kudra yi génnee woon ci ay dogal loolu nekk lu ñu war a gën a gaaw a pratiquer ci beneen wàll nga gis mu xaayimoona yi mooy mu jaahidoona gis nga ne ñu ngay tëmbal ay safara ci foofu nga xam ne mooy Haaj Dosaan nga xam ne benn benn camp boo xam ne mu ngi ne ci sud sow dëkk bi ñu wax ga si euh, suuf euh, fële Gaza ci Cisjordanie camp boobu nga xam ne ay yahud ñoo fa nekk ñu ngi gis ñi nga xam ne mooy mujaahiid ñoom ñoom di fa tiir ñoom rey ñu xale rey ñu jigéen dañuy dem ci ñi nga xam ñooy seen i moroom yi góor di leen faat ñuy daw ak a dof ak di di di tambaambaalu ñoom ne buñ a rek jubli ci jigéen ñi ak xale yi jàppale mbir mi foofu la mbir mi du foofu mbir mi dëgg-dëgg mooy bu nekkee xar bu rijaale lañ jàkkaloo seen i moroomi góor buñ jàkkaloo woon ak ñoom du mat une heure de temps ak puissance bu ñu mën a am ak armement bu ñu mën am du mat une heure de temps ñu assurer leen dem naa ne ji ataay tal abib te noonu lay demee moo tax loolu ngeen gis ab doxu ñaxtu la ay nit ñoo ko def démb ca Rafah ngir ñaawlu fanweeri doomu aadama yi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan te nekkoon nekk ay daw làqu te Israël daal di loolu moom moo nekk naqar yu nga xam ne démb ñooñu jël nañ daal di fëgg seen i gémmiñ di fëgg seen i tàccu di wax ne adduna bi xool leen ñaaw tiis bi nga xam ne moom Israël def def ko ci lan loolu daw làqu te ñëpp xam ne ci wàllu loi addina ci wàllu xalaat ci wàllu lépp gi nga xam ne ñooy lay refusé dañu am ay sañ-sañ dañu am ay droit nit ki bu xasee benn mbir def waaye Israël fi mu toll dañoo nekk ci ñaar ñoo nekk ci ndof goo xam ne xamuñu fu ñu jëm dañoo nekk ci

mu lu tolloog neuf cent mille mooy juróom-ñeenti téeméeri junni ci ay ñoo xam ne dawee nañu rasxa ngir xeex ba fa nekk kon loolu xam nga ne lim bu daal di takku la waaye ki nga xam ne moom mooy benn historien muy ku yëngu ci wàllu histoire ci di ab israélien muy Ilan Bay bi Ilan Bay bi bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañuy tuddee club Al Jazeera ci ñi nga xam ne dañoo taxawal li ñuy tuddee projet sionisme bi nga xam ne ñoo war a samp nguurub Israël nee na nag nañ bàyyi xel nag projet bii nga xam ne mooy projet sionisme bi naam est-ce que fa nekkul mujjanteelu projet bi est-ce que projet bi nekkul ci daal di daanu na seen projet daanu waaye ñun suñu projet réew mi bu mu daanu de ñoom na seen projet si fini daa nañ nekk nag li nga xam mooy en ñoom nag ñoo dem ba koy xalaat di waxee noonu kon nag mbir maa ngi noonu ñëpp a koy teg bët te xam naa fa la jëm nag daal di màbbu ndax nag tooñ bu ñu teg ci tooñ samp ci ay deret samp ci lu ñaawteef gi nga xam ne moom lay def ci àdduna bi loolu amu leen lu ko mën a seetal ci beneen wàll yahuud yi di fësal ne ñoom kat am nañu ay musiba yu metti ci kaar bi nga xam dafa explosé foofee nga xamante ni moom moo nekk ci nday joru Tel Aviv muy nekk kaar boo xam ne daan nay explosé lor na leen lor yu méttee méttee métti loolu ñu koy firndeel euh, mbokk yi ñaari vidéo yi ñoom ñooy ñuy jeexal li nga xam ne mooy journalu tey bi bi ci njëkk moom mooy gis ngeen waa jooju fi mu toog ak xale yi leen laaj ak leen wax lan mooy seen bëgg-bëgg xale yu bëri mu leen di teel a jàngal yu tudde istisaat moom mooy dee yoon yoonu yàlla aljana waaye mu di jeg benn xale mu fukki at la am di ko wax ñi nga xam ne deele nañu ko waaye gis nga ñu ngi dajal waat xale yëpp ngeen gis ndeysaan seen i bàyyi faatu nañ seen i yaay waaye ay ONG jullit di leen gën a defaat ñoom ay jullit dégg ngeen seen tur ya Hamza Abdallah Anas loolu daw yaram lool waaye vidéo bu mujj bi yéen a ngi gis démb li ñuy tuddee club Al Ahli benn club la bu nekk Égypte ci seen final bi ñu doon def ci Coupe d'Afrique boobu nga xam ne moom doon def xam naa ci club yi lay doon dem ñu yuux ci stade ba mu riir que di yuuxu Palestine di ko soutenir un peu partout dans le monde mbokk yi xarit yi du ñàkk sax xaj na ci bëccëg bu ñu amee temps dañu dellusi waat ndax xibaar yi bëri nañ waaye ak ziar di yemale xibaar yi ba yeneen jëmmi jamono deen ñaanal jàmm ak sutura di wax ne aasha Palestine aasha Palestine yal na yàlla may jàmm ñu fa dëkkee dooleel leen kattanal leen yal na yàlla nasaxal yahuut yi ak mboolem ñu leen di jàppale nasaxal seen nguur nasaxal seen sañ-sañ nasaxal seen mën-mën dooleel leen démb tamit bu leen fàtte ti amoon na ñaari grande manifestation yu am fii Sénégal bi ci njëkk mooy bi amoon mbuur mbuur nga xam ne ñu ko euh, taxawaloon mooy ñuy tuddee jamiatul Sénégal moom mooy association Koutsou pour le Sénégal te ngeen a xam ne ñi nekk ca bopp ba Cheikh Abdourahmane Youssouf Ka Imam Dianké Mohamed Amin Diène Cheikh Ibrahim Diouf Moustapha Ndiaye ak ñenn ñi nga xam ne ñu ngi topp ci seen ginnaaw bokk ci liggéey bi di ko liggéey depuis ay ati at di ci liggéey pendant vingt ans démb moo nekkoon vingtième édition ndax waa ji waxoon dix-huitième édition dafa fàtte ni ñaari at yi nga xam ne amee amee nañ ko corona bi dañ ko tëboon waaye teewul defoon nañu ay réunion te dañ ko dugal ci mbir mi kon vingtième édition la woon démb ñuy ñuy xeexal ñi nga xam ne moom mooy waa Palestine di leen yuuxul fu ci nekk den taxaw ci lool tamit amoon na benn grand rassemblement boo moon à Dakar gis ngeen ni mu demee dajale na tamit force vive de la nation ñoom ñëpp ñu taxaw wax waaye ñu ngi gërëm notre président mooy Cheikh Bachir Diomaye Faye ci position bi mu jël te di ko ci wax na ko bu mu ci sentir kenn ku mën a xoqatal bu mu ci bu dara yàlla moo yor réew yàlla moo yor wërsëg yàlla moo yor tranga na ci dëggu ci jàppale gi muy jàppale wane ne waa Hamas dëgg dëgg dëgg dañoo am sañ-sañ ci ci jotaat seen suuf ñun kàddu googu rek lañ a nag mosuñu ko na am ci benn njiiti réew xamoon nañ nag ñooy ne Sénégal mosuñu signé fu Hamas di nekkee terroriste waaye dem ba jàpp ne waa Hamas am nañu sañ-sañ ci lii ñuy def nag loolu moom moom ñu ngi doog di yegg si nag ci boobu sañ-sañ ñu ngi ñaanal yàlla ci boobu taxawaay yàlla dëgëral ko ci te xam na taxawaay moom ñun ni ma koy faral man duma ma saxaan rek benn pouvoir yi passé yu tey yu ëllëg ci yëpp waaye nag taxawaay bu rafet bu ne dinañ ko joobe kañ ko te taxawaay bi day taxawaay bu ma ñor lool ma ko doon xaar ci sama réew doon ko xaar ci sama njiitum réew waaye dëgg dëgg fa tabaarakallah yal na yàlla sàmm ko dëgëral ko te di ko rappeler rek la moo xoon di ko wax démb ndax ñoom am nañ information moo xam dañ koy fédéré moo xam commission bi nga xam ñoom ñoo ko ko yoroon dañ leen di taxawalaat loolu nañu fexe ba acteurs yi nekk sur le terrain yëpp ñu wax ak ñoom bu ñu xool ñi nga xam ne dañoo bàyyi nit ñi di liggéey pendant vingt ñu a am na fu ñu nekkoon démb yéen xam ngeen leen fa la ñu nekkoon am fa seen i oto am fa seen suuf am fa seen i léegi nag dem nañ régime boobu daanu na mënuñoo taxawaalu ñu ngi jéem a récupérer liggéey bi nga xam ne gor yi ñoo koy def ñun nag utuñ ci alal utuñ ci sañ-sañ par contre ñoo ciy

national bi moo ñu bàyyeegul te noonu rek la mën a demee nag wax dëgg yàlla ndax mën agul a sedd nag ndax li ñu gis moom diggante démb ak say ba léegi suñu xel daf cee dal suñu xol daf cee sedd maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp donc salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu